ak jàmm ñu ànd xëy yër yéen jamono ji dañu amal manifestation juróom-ñeenti fan ci weeru juin wi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu daal yemboo ak ajuma waaye tamit dinañu amal ab doxum ñaxtu boo xam ne fukki fan la ci weeru juin muy yemboo ak samedi bi nga xam ne moom la ñu jëm bi nee ñi nga xam ne ñuy waa plateforme F24 ak waa coalition Yewwi Askan Wi nee nañu nag jamono ji li nga xam ne moom la ñu mooy lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature président Macky Sall nga xam ne ñoo koy lam-lamee mu daal di ciy wax lu leer daal di ciy génn wecci waaye tamit ñi nga xam ne ñuy waa plateforme F24 sàkkoon nañu Ousmane Sonko ñu daal di li nga xam ne mooy ay àqam ak ay yelleefam maanaam ay droit am ba pare ñi nga xam ne dañu leen a ci kaso bi te wàllum politique tax ñu leen di tuddee ay détenu politique journal bi bi nee na samedi fukki fan réew mi di Sénégal ma ngi jëm ci week boo xam ne nar naa tàng jër ñi nga xam ne ñuy waa Ligue des ak lu toll si ñaar fukk ci mouvement société civile ñoom jamono ji ñoo ngi wootaab dialogue li ñu bëgg mooy Macky Sall ak Ousmane Sonko daal di toog ngir jàmm am ci réew mi yéen kay gi de Le Quotidien xibaar naan ñu nga xam ne ñuy plateforme F24 ñoom jamono ji dellu nañ ca mbedd ma ndax ajuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ak samedi bi ñoo ngi ci mbedd yi yéen kay gi a genn xët pëcc goo xam ne maara day tali boo xam ne ne doy na waar ginnaaw ñeenti fan yoo xam ne ay manifestation am ci mi am ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu si seen bakkan Sénégal lu bari daal di ciy yàqoo premier ministre bi ba léegi kenn déggu ko ci maanaam noppi gi nga xam ne Amadou Ba noppi na ko premier ministre si jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci réew mi loolee moo jaaxal journal bi de la témoin bu mu xëy samp si laaj yéen gi di xëy duñu xibaar naan ñu am ba desal ñi ne ñooy farandooy Ousmane Sonko leen di jàpp ma ñu ñu fa jàpp yéen kaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk Karim Wade ci biir journal bi daat nay wax ci situation bi nga xam ne moom la Sénégal di dund doomu Abdoulaye Wade bi nee na jamono ji war nañoo moytu ngir Sénégal dugg ci kaw Karim Wade daat nay wax ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi nee na xam nañu bu baax a baax maanaam jaaxle gi nga xam ne moom ngeen jaaxle waaye tamit xam nañu ne ñàkk yaakaar gi ngeen ñàkk yaakaar loolu lépp xam nañu ko xam nañ tamit nañu baree bari ñàkk nañu ci seen bakkan waaye tamit lu baree bari yàq nañ ko ci réew mi infrastructure ak université waaye li am ba des wàllum violence musuta nekk solution ay ba tey ci biir journal bi bi Karim Wade nee jamono ji nañu ànd akuk dal maanaam retenu ba pare wegante joxante cër moom doomu Abdoulaye Wade bi ci biir journal bi daan nay wax ne en tout cas nguur moom kenn mënu see jot di jaar ci kaw yu néew yéen kaay gi de la témoin moom Karim Meïssa Wade daan wax ne sunu réew mi duñu bàyyi kenn di ko nërmeelal journal bi di bés bi nee na Karim Wade ma ngi xëy di yedd Ousmane Sonko ak Macky Sall yéen kaay gi la Quotidien ñu xëy fekk fa Aminata Touré nee na moo ko waral xëy xibaar naan ñu ministre Aliou Sow ak Modou Diagne Fada ak Aliou Sall seen i kër dañu ko bëggoon a song ñi ko bëggoon a song teg nañu leen loxo dañu leen a corrigé dóor leen doog leen a jébbal police yéen i kaay gii xëy dañu xibaar nan ñu jamono ji pression bu rëy la ñu teg ci njiitu réew mi di président Macky Sall ndax kuréel gii di Human Rights Watch ñoom jamono ji li ñu sàkko mooy ab enquête bu leer ci ñi nga xam ne ñoo faatu ci Sénégal waaye tamit sàkko nañu détenu politique yi ñu libéré leen coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag ñoo ngi woo waa Nations Unies ngir nag ñu yónnee fi ab commission d'enquête yéen i xëy di ñu xibaar naan ñu démb am na élèves yu bari yoo xam ne dañu leen a délogé dañu leen a génnee bi ñu dénk wàllum njàng mu digg doomu mi di Cheikh Omar Anne nee na nag njàng mi dafay wéy waaye nag kaaraange gu mat sëkk danañu ko si jël journal bi nee na train express bi nga xam ne taxawoon na dina commencé wat daw yéene kaay gii di Les Échos nee na Cheikh Bara Ndiaye gars yi laaj nañu ko ay laaj ba sonn mu lànk bañ ñu njorto ne moo recruté Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag daat nañuy weddi kilifa yi nga xam ne ñooy wax mbirum force occulte journal bi nee na fan yi ñu génn ñi nga xam ne ñu waa police dañoo waxoon ne ci biir manifestant yi dafa am ay force occulte yoo xam ne ñoo nekk ci biir loole nag information la boo xam ne coalition Yewwi Askan Wi ñoom dañu ko weddi ba pare nag tuumaal Macky Sall ne mooy recruter ay nervi ñu dem ci wetu takk der yi journal bi di enquête xëy duñuy xibaar naan ñu force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoo ngi ci mbedd mi ñaari fan ci weeru juin ba léegi ñoo ngi fi ñooñee ay héros leen di faral di fàtte am na benn commissaire boo xam ne dafa làqu turam nee na ñi nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yi ci situation yu mel ñu bari dañu leen di ŋàññi mën na ñoo wax ne force de défense et de sécurité yi seen yaay yi rek ñoo bëgg yéen kaay gii la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew di président ma ngi woon ci diwaanu Touba la di gisante ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ci këram gi nekk Daaru Minam journal bi nee na situation réew mi ne waxtaane nañu ko 35 amul benn déclaration boo xam ne def nañu ko yéene kaay gi de l'observateur xëy di ñu xibaar naan ñu attention ci Sénégal économie réew mi jamono ci demul ci nga dikkul mbay laara lu jëm ci wàllum informel bi dafa sooxe njëg yi boo muy tuule dana gën a yokk njàng meeg njàngale mi jamono ji ma ngi ci jafe-jafe tëbaski gi ma ngi wàcc loolee moo tax journal bi nee na lii lépp mën naa indi yeneen ñaxtu ci réew mi yéene kaay gi de le quotidien yor yora xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba des ak lu gudd gàtt ak bu ñu mën a teg bu ñu fexe ba jéem a éliminer Ousmane Sonko ci élection 2024 jafe-jafe man naa am ci réew mi li am ci journal bii di wal fa fajëre mooy laaj bi nga xam ne waa wal jëre xëy nañ di ko laaj nee nañu jafe-jafe nga xam ne moom la Sénégal di dund lan moo tax président Macky Sall noppi ci yéen i kaay gii di laas xëy dañu xibaar naan ñu ginnaaw ñetti fan yoo xam ne ndakaaru njaay jël jópp askan wi dund nañ fin na joo xam ne ju maara day taali la jamono ji nag dund gi commencé waat na yéen i kaay gi nee na coalition Bokk Yaakaar ñoom nag nee nañu li ñuy sàkku mooy état bu Sénégal reste fort yéen i kaay gii di Direct News ñu xëy fekk fa maître Nafissatou Diop daan nay wax ne mbiri aji Sarr ak Ousmane Sonko maanaam atte bi firndeel na ne ñi nga xam ne ñooy magistrat yi ñoo moom seen bopp bu doon ay magistrat yoo xam ne dañu leen di wax ñuy def Ousmane Sonko danañu ko retenir ci lu jëm ci wàllum viol ak tëj ko lu toll ci fukki ati kaso waaye nag doxalin wi magistrat yi bañu ko tëj fukki at loolee firndeel na ne magistrat yi moom seen bopp waaye nag amul kenn koy jot ci nguura jaarale ko ci violence kàddu yu maître Nafissatou Diop la journal bi na waa Auchan ca diwaanu Mbuur ñoom nag nee nañu de jamono ji suspendre nañ ko journal bi de la point xëy fësal ci xëtam mu njëkk inauguration centre d'interprétation et la nouvelle exposition de la maison des esclaves de Gorée bi nga xam ne ministre bi ñu dénk wàllum culture di professeur Aliou Sow na ko inauguré yéen gi délibération xëy dañu xibaar nañu Xaadim Mbàkke mi nga xam ne moom la ñuy tuumal ci diwaanu Touba na dafa yegg ci lu toll ci fanweer ak ñeent ci xale yu jigéen yoo xam ne ay mineur lañu démb jébbal na boppam police police jël ko jébbal ko gendarmerie